contre toute attente mu dem ci supprimer poste premier ministre c'est pas une réforme mineure c'est une réforme majeure mm-hmm. réforme majeure tamit daf ko waroon na jaayale sénégalais ne leen sax bëgg naa su ñuy dem ci su su ma ngeen ma falaatee poste premier ministre bi dama koy dindi ce qui ndax gis naa ne mm-hmm. bi ngeen ma falee juróom-ñaari at yi ma gën a def su ma ko dindi woon nangam ci mbay mi dinaa gën a am nangam nangam nangam nangam daal ne premier ministre yi ma amoon lii moo doon goulot d'étranglement la ñu woon par rapport liggéey bi nga xamante ni bëgg naa ko def. Mm-hmm. les gens auraient compris et les gens auraient aussi arbitré ci dans un sens dans un mm-hmm. tel n'a pas été le l'a constaté mu mettre ñu devant le fait accompli. Mm-hmm. ñu ñëw ne dañu koy supprimer parce que dañu bëgg affaire yi gën a léegi nag suñu réew tamit dafa bokk ci talon d'Achille yi mooy évaluation. est-ce que bi ñu supprimer poste boobu évaluer nañ li nga xamante ni moom lañ ci gagné valeur ajoutée bi ak li nga xamante ni loolu la ñu xañ y des gens qui posent le débat boo suivre am na ci ñoo xamante ni il le pose il le pose à dessein aussi oui mm-hmm. dañ ko dañ ni ñu koy defee yëpp xam nañ ne nit ñi tamit dofuñu mm-hmm. yaa ngi dégg su fekkee ne président de la république aussi dafay def dafay dem quarantaine peut-être qu'il travaille sur un gouvernement il prend des dis il prend des distances. comme mënul dem Maroc. <laughs> mu ne bàyyi leen mu déggee ci gouvernement. <laughs> remaniement ma léegi yow kon da nga am xibaar ni dañu war a dañu war a remanier wala lan. Ah, wax ñu ñu xam nga ñun xamuñu. non ah benn xëy na nga tane ñu. non mu gën a Abdou Abdou kon loolu dig na dig na ci wéy de Mbadou Mbadou. y' a beaucoup de laaj Pape rek na moom. ah non non non. yow lii la ñuy laaj yaa moo bokk foofu loolu laaj. exactement interrogation bi te doon même envie de retourner la balle ma laaj. Euh, Mamadou Berthe yow daf la fa fekk. ba pare ba pare Ablaye waaw boo daaneel beneen question bi aussi mooy. très sincèrement coronavirus aussi dafa mel ni. ñun yeneen réew yëpp fi mu ne dañ naan ñun lan la ñuy jàng ci coronavirus. Mm. les enseignements tey jii boo xoolee débat yi posé feneen yëpp la débat c'est sur la recherche sur l'industrie sur le numérique ah. Euh, sur ces questions importantes yi nga xamante ni dafay impliquer sunu tey ak sunu. potentiel humain. potentiel capital humain bi nga xamante ni am nañ ko pour mu porter loolu. mais coronavirus ci sunu réew nii mais dafa mel ni sax daf ñu wan sax ban taille du gouvernement lañ soxla. Mm. <laughs> honnêtement mm-hmm. am na ci ñoo xamante ni xalaat nañ ne war nañ leen mën a parce que am na ci ñoo xamante ni ci corona bi est-ce que gars yi sentir sénégalais yi nañ leen ci seen quotidien am déet waaw wala déet au delà yóbbu dem joxe fi ay kii ñu foto la ak yooyu bu bu weesoo loolu tey jii coronavirus daf ñu ramener nag à l'essentiel te pour man le débat bi ñu war a poser tey partout mooy ban assemblée nationale la ñuy soxla dëgg-dëgg au conseil collectivité territoriale son importance son utilité c'est important on le mettra sur la table oui. le conseil économique social et environnemental sa contribution par rapport à la résolution de cette crise là c'est toutes ces institutions du Benoît Sambouyor sa contribution parce que les, la décentralisation n'a jamais été aussi sollicitée jamais aussi sollicitée yaa ngi dégg parce que tey jii lu bari coono yu ñu am yu ci bari dem beeg dikk bi gis nga bi ñu tëjee région yi ni nit sonne mm-hmm. parce que am na ci yoo xam Dakar rek nga ko mën a wutsee mm-hmm. am na ci yoo xamante nii boo dëkkee gars yi Saint-Louis rek nga ko mën a wutsee mm-hmm. am na ci yoo xamante nii Kol Tamba rek nga ko mën a wutsee wala Faye rek nga ko mën a wutsee donc pour man loolu mooy les questions essentielles yi nga xamante nii tey loolu moo war a nekk sur la table et pas ay question premier ministre s'il a envie de Euh, waxtaan dara waxtaan bi di la. waaw wax bi wax bu sore na xóot na am na yu bare yu ñu yu ñu yu euh, man dama jàpp ne njiit mhm. ndam lay wut. donc lépp lu koy may mu mën a réussir ci liggéeyam dana ko def lépp lu mu yaakaar nag ne dana ko xaw a nasaxal dana ko xaw a teggee gile boor mhm. moo tax bi muy wax sànq ne fast track ba taxoon mën naa ko jàpp. mën naa jàppit ne bu demee ba contexte bi changé ba demeetul loolu xëy na fast track contexte bu ñu nekk nii soxlaatul loolu xëy na mu tëral waaye li ma cay jàpp daal mooy euh, ak lu mu ci mën na mën na teg euh, doon loo xam ne mooy li gën ci réew bi mooy li gën a yombal euh, doxin bi te gën ñoo may ñu gis yoon pour génn ci Covid bi ni mu ko waxee te yaakaar naa loolu mooy priorité yi maintenant bu fekkee ne euh, am na ku jàngoro bu jàpp ci ñu ko jege ba tax mu euh, ber boppam je pense que baax na euh, citoyen xam ko ndax tey juma da nga gis ñu daan doxee mm-hmm. dafa nag nit dañ jàpp ne feebar amul mm-hmm. donc message yu mel noonu yaakaar naa da leen di fàttali ne jàngoro jàng fi ba léegi te war nañ moytu comme nañ daan moytoo ci ca njëlbeen am na ci nag leneen loo xam ne depuis un moment maa ngi koy maa ngi koy xalaat am na ay at mooy rapport sénégalais ak risque rapport sénégalais ak danger mm-hmm. rapport bu compliqué la mm-hmm. sénégalais dafa nam ma ji jóge ci yooyu naan euh, dogal atte ma du loolu danger euh, beneen rapport lañ ci war a am mais yaakaar na yëpp nag dana ko ci gën a yee. Mm-hmm. loolu daal la le rôle de la protection civile. c'est la protection civile. mais de de communiquer de dëkk yi nga xamante ni Covid ba dafa génn outil bi ñu gën a mooy la protection civile parce que justement c'est la protection civile moom moo lay wax rapport bi ngay am ak danger. moom moo ci war a communiquer où la protection civile. c'est quoi son budget. <laughs> donc donc. <laughs> on a posé le débat parce que. Pape ah, Histoire rapidement ah, ah, avant may dem ci. ah sëñ bi comme bu ñu tënkee daal coow li bu ñu waxantee dëgg. seen boor seen boor la génnee. de plus en plus ñu ngi koy réclamer ak li ñuy wax est-ce que du remaniement bi ñuy coow kon dafa mujj beru. pour jéem ko def gaa ngi bañ ñëw ci nopp li di di di wax wax ju bëri ak di influencer. jërëjëf xam nga jaanu téeméeri bopp dina jafe nga xam ban bopp mooy ci jëkk <laughs> jaanu jaanu téeméeri bopp <laughs> jaanu téeméeri bopp nee dina xam man de bopp dina ma jafe ma xam ban bopp mooy nga tënkal ñu ko rek mooy xam nga euh, jàll ji xam nga en matière de stratégie dafa am euh, offensive défensive am réplique am euh, manipulation mm. en matière d'espionnage et de contre-espionnage yëpp day am donc xam nga mbir yi man non du ma wax loolu cest ah, mën na nekk mën mm. na nekk mën na nekk ku ne mais yaakaar naa ni président li ma xam ci moom ci responsabilité mm. ak situation bu ñu nekk président talul loolu mm-hmm. sama yaakaar bu rafet moom nag sañ-sañ la am na loo xam sañ-sañ la boo xam moom moo mën am initiative loi am na loo xamante ni sañ-sañ la pencu ndaw réew mi kese la ko sénégalais yi jox. ndax il faut que ñuy delloo buum ci boy boy bu am na loo xamante ni sénégalais yi ko moom am ñu ngi ko dénk ku nekk li ñu la dénk nag da xam fi sa bos commencé ak fi mu yem. mais ma yaakaar ni tey fu ñu waxee question de vie ou de mort. guerre yenn yi dana daan ñëw ñu ne dañuy def attaque telle puissance damay def des frappes aériennes j'ai planifié je fais quinze jours. mais guerre bi nga xamante ni moom xamoo kañ lay jeex ñan nañu yàlla mu teel a jeex euh, ñi ngi def ay ajustement am na ay choix yu ñu def yoo xamante ni dina régler en même temps des problème structurels par exemple tey fu mel ni vallée de l'Anambé bu ñu ne ba xam ni mënatuñu ne di importe ceeb bu ñuy wax dañuy commander bokkoon na ci clause yi wala condition yi ku am ku mën a jaay ceeb bi ci njëg gi ba pare mu teew fii Sénégal du looy wut jënd bitim réew. Mm. yooyu ça pose de fond donc moi je pense que lii nii euh, crise bi c'est vrai euh, jàngaro bu doy waar la ñu ñaan yàlla mu jóge fi mais ci bokk na ci enseignement yi ñu ci war a jël entre autres sur les questions économiques ñu am yoo xamante ni dañ koy pas expérimenter mais dañ koy dañ dañuy jël suñu responsabilité jublu ci muy farata parce que mooy li may wax lii def ñu war a jàngal ñu gën a jéem mën suñu bopp ndax ci mën suñu bopp googu yeneen yi bari ci lay balle mais pour dellu si ci li nga xam mooy feebar mooy li ma wax sànq bu sa óom euh, di metti bu dem laal sa los feebar bi fu mu toll jéggi na dayo complexité Sénégal à tout point de vue su le plan culturel sur le plan religieux sur le plan sociologique ak fragilité suñu model économique yenn réew yi dafa am système de sécurité sociale fii suñu système de sécurité sociale mooy kenn mooy liggéey yóbbaale fukk fii suñu système de sécurité sociale mooy da ngay jël ay mouchoir jógee pàkk Lambaay wàcc si plateau jaay ci fukk dem marché Castor ndugg yóbbu sa kër am loo tàngalal xale yi am ah, on n'a pas les mêmes systèmes structurés moo tax mhm. même le débat sur le confinement wala le déconfinement un mois total ou pas ce débat là euh, mooy on toujours dans le glocal c'est-à-dire même su fekkee Sénégal dafa tijjeeku ci àdduna tamit pensée bi mën a nekk global parce que y a des règles universelles y a des valeurs universelles yu nit ñi partagé mais toujours dañuy war di dellu ci suñu ay réalité locale suñu réalité yooyu nag moo ñu war a guider aujourd'hui ñu xam ni am na loo xam waratuñ ko maslaa suñu biir feebar buñ ko bàyyee muy continuer di dem dégâts yu mu nar a def ay du yem ci bopp borom kon même bu dee président dans un exercice boo xamante ni moom kese ci cëslaay li au finish moo mën a xam pourquoi mu choisir façon communiqué bi ñun jàngat bi ñu ci mën a am bu rafet te mu jekk ci démocratie fu mu toll bokk na ci un objectif de communication politique mais surtout de pédagogie mm. je pense que pédagogie dafa am solo mm. ci réew kon li nga xamante ni moo am nag maintenant xam nga remanier président bu ko neexee nañ ma Senghor ca taarix dafa signé woon benn décret ki mu folli woon ni c'est ilegal parce que à l'étranger da ko signé xam nga ci baat bu neeb bi mu ngi jeté à l'ambassade du Sénégal à Paris hmm. qui en diplomatie est un territoire sénégalais mm-hmm. hmm. mm-hmm. yow ko xamante ni boo nekkee boo nekkee Rabat à l'ambassade du Sénégal boo nekkee Popenguine boo nekkee Fatick boo nekkee yoon may na la nga nga changé leen ni hmm. je pense que débat boobu à moins que nag ñenn ñi muy ci opposition Euh, wala ci ñenn ñi nga xam nekkuñu ci vision. Mm. ñenn ñi nga xam dañuy wuyoo ni njabootu président lañu ci mandat bi ko Sénégal yi dénk ci résultat yu ñu ci rendu yu ñu ci war a joxe ak jafe-jafe yu ñu nekk ñuy wuyoo loolu ba pare nekk ci beneen agenda loolu même bu président demoon ba mu am ci xalaat je veux dire soxlawul wax ndax bu ko bés bu demee ba xa ba bëgg ko wax askan wi war na mën a am ak staffam ak yépp responsabilité xam ni lu nekk dafa am waxtam et je pense que je rejoins la plupart de certains filles pense les choses sont suffisamment sérieuses mm. pour que ñu vraiment dugal dans ce débat orientation bi mm. ligne bi mm. cap bi mooy fexe on est à deux cent deux mille cas sous le personnel risque d'être débordé et je pense que le gouvernement dina jël les mesures idoines pour que le personnel de santé puisque jusque là il y a la continuité les engagements macro sont plus ou moins respectés Euh, muy fonction publique mu yenn démembrement de l'État yi nga xam ah, jàngalekat yi nga xam tey ils sont à l'épreuve euh, jotuñu wax ci rentrée bi yooyu yëpp je pense que mooy li nga xamante ni mooy cëslaayu réew mi mm-hmm. et bala nga naan naam ne fa je pense santé amul njëg lépp li nga xam moo ci war je pense que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que sénégalais yi vraiment mën a tal seen bopp mooy mun muy mun a am wér-gu-yaram jàngoro ji yàlla dindi ko Sénégal dindi ko fépp ci àdduna bi je pense que c'est le lieu de dire que fi ñu toll nii aussi euh, wax nga ko 2000 cas sous traitement la ñu nekk am nañ 2000 cas yoo xam ne ñu ngi ci lal yi aussi officiellement on est à 98 ñoo xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan même si bon malheureusement on s'attend à ce que bilan wu euh, bi ñuy dëgmal et eh bien que le cap des 100 soit officiellement franchi officiellement en attendant le communiqué donc euh, du ministère Euh, donc Pierre ni ñuy def rek pour mu bar dugalal ma choc de la semaine ñu ci bañ a wax loolu tamit lu askan bi di jànkonteen la mooy euh, ñàkkum ndox mi ñàkkum ndox mi très rapidement rek ku ci nekk benn tour de table une minute lañ la may nga tënk ñu mën a jàll tamit ci gis-gis mën a yëkkati jotaay bi alors ndox mi fan yi yëpp ni nga koy jooy euh, Sen'Eau ndax finalement seen au sans la ñu tuddee ko sans eau sans sans bëgg leen tooñ. monsieur Berthe problème mu ndox. Mhm. ak problème mu électricité problème yu yu jafe jafe réglé la. Mhm. ci suñu xeetu xeetu réew yi ak suñu xeetu dëkk yi la. lu tax ndax. Euh,